alhamdulillahi masant yàlla julli ci xëyrul xalqi rabbun jàlla alhamdulillahi ma yàlla julli ci xëyrul xalqi rabbun jàlla wa baadu maa ngi taalifal maymuuna mañ saxiira waaye mag la moona mooy bint sayxinal xadiimi caat ma moo tax ba mboolem mag ña jox ko war ma mu boole mbóoti taaw ya ak yoy caat ya donn ca mbóot ya nekk tey baag mbir ya jàng nga jàngle nga wooteeg màggal fii laylatil xadri yaa koy sellal weer wi nga wootee gën ci mboolem weer yi guddi ga it moo faw xa mboolem guddi yi foo tudde laylatul xadar ci réew mi xel yépp dem ca soxna may fii saw mi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 julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam feddliwaat sunu yaakaar ci Seyxuna Ahmadul Xadim noo ngi ziare Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko ñaanal sunu boroom mu dolli aw fanam akuk wéram kàttanal ko ba naal yu rëy yi mu naalal lislaam yëpp mu àggale ko te ñu ànd ko ak moom te am ci ngërëmul sëriñ bi di nuyu mbooleem buntu këri kër sëriñ Touba yëpp waaye di nuyu itam mbooleem ëtti lislaam yëpp di nuyu mbooleem daara yi ak sëriñ daara ya mbokk yi nu nga amaat mbégte ñëw ci ak yéen sunu ñetteel bi numéro ci waajtaay wi nga xam ne commission culturel ak communication bu laylatul xadar ñi ngi koy amal muy ay waxtaan di ay plateau di ko waajalee leelatul xadar ji nga xam ne moom la soxna may mënatu Mbàkke bintu Cheikhul Xadim daan taxawe fii ci Touba nuy siyaare bu baax jëwriñi ëtt bi di sëriñ Mouhamadul Mahfouz waaye jaarale ziar boobu ci njabootam di sëriñ Cheikh Abdoul Ahad Gaynde faatma ak soxna Aysatu Mbakke ak mbooleem ñi ñu seqal soxna mu Maymuna yëpp di fab nuyoo ak ziareb waa commission bi teg ko ci loxol sëriñ Seexuna mu sëriñ Mouhamadul Habib mu jàllale ko ci ñi mu seqal liggéey bi ñëpp mbokk yi tey ñu amaat mbégte toog ak kenn ci njabootuk sëriñ Touba. toog ak kenn ci doomi daara yi toog kenn ci boroom xam-xam yi di sëriñ seexu Seexuna Buso Cumbuleen yaakaar naa ne ñi nga xam ne ñi ngi topp jataay yi miin nañ ay jataayam ci barab yi nga xam ne barabi bi xam-xam lañ muy koo xam ne bi jàng jotee ay waajuram jàngaloo nañ ko bi yaru jotee it tërbiya nañ ko ba mu ca noppee nag sanc na daara di jàngale ni ko ay waajuram daan defe ñu tànn thème boo xam ne tey jii yaakaar naa ne dana jàpp ne ci moom lool ngir mu waxtaane ko te thème boobu mooy li li li indi nit murit yi ci Serigne Touba mooy Serigne Touba doon gi mu doon xiiwal ba noppi nag di yërmande loolu it danga nga ciy mën a dégg ndax yàlla dañuy wax ne inna allaha kaana binnaasi la raufun waaye rahim la sëñ Tuubaa nag ni'ma xiiwal la waaye yërmande la tomb boobu nag lañ fas yéene waxtaane ak sëriñ naa bañ xam ne ñi wuy si seen bopp rek leen tax wuy si sëñ Cheikhouna ginnaaw bu ma la bàyyee nga nuyoo ak mbokki téléspectateurs yi boo nuyoo bu noppi rek suñu laaj bu njëkk mooy sëriñ Touba doon gi ko gi mu doon xiiwal ñeel mbindeef yëpp wala ñeel lépp loo xam ne rek yàlla bind na ko lañ bëggoon ñu ñëw ci tomb bu njëkk boobu aoudu billahi min alsheytaan rajim bismillahi wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala uh, asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu bépp jullit ak fépp fu mën a nekk ci kaw suuf di dégg sunu kàddu wala mu jàkkaarloo ak sunu jëmm di teg nuyoo bi ci loxol Cheikh Mouhamadul Fadilu mii nga xam ne moom lañu toogal di sunu ci biir liggéeyub Serigne Touba bi di jaarale nuyoo boobu ci njabootu soxna Maymuna takka ne ca bopp ba di Cheikh Mouhamadul Mahfous ak ñi mu seqal liggéey bi di Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacke Gaynde Fatma ak soxna Aïchatu Mbacke ñu ngi leen di siyaare ci bis bu mag bi nga xam ne ñu ngi koy séentu di ko waajal. te seen waajur wa daan ko taxawee seen maam ja daan ko taxawee taxawaay bu ama am solo boo xam ne eh, yoonu murid yépp ràññee nañ ko ci waaye senegal gépp ràññee nañ ko ci kon ñu ngi leen ci ndokkeel <coughs> di ndokkeel jullit ñi nag fu ñu mën a nekk ci kaw suuf ci weeru tedd wi ñu nekk ñu toll ci fukki fan yi nga xam ne moo nekk ci digg bi tey di benn fan mu mel ne la sunu boroom dige woon ci ramadan ci làmmiñ yonente bi aleyhi salaatu wasalaam muy yërmande ak njéggal ak goreel ci sawara ñu ngi ñaan sunu boroom defal ñu ko ci defal ko ci bépp jullit ni ko sëriñ Fallu waxe nañ mbégte lool ci jataay bii nga xam ne fekke nañ ko ngir yaakaar gu ñu yaakaar sunu borom di defal ngir yu bare bari Euh, bokk na ci weeru tedd wii ñu nekk nga xam ne lu ci nit def ci lu baax sunu borom daf koy ful ñaareel ba jëmmi bis bi nga xam ne moo tax ñu daje fi di ko waajal muy laylatul di bis boo xam ne sunu borom subhaanahu wa taala wax nañu ni xayrun min alfi la ca dollikuwaat mooy jëmm ju màgg ji nga xam ne moom lañ ci bëgg a waxtaane muy cheikhul xadim radiallahu anhu ni mu doone xéewal ak ni mu doone yërmande kese loolu nag sëriñ Fallu dafa mel ne joxoñ na laaj bu njëkk bi ci sëriñ Tuubaa naka la doone xéewal loolu jàpp naa ni euh, dañuy indi rek ci ñu xam lan mooy xéewal dëgg-dëgg ci ni suñ boroom tuddee xéewal waaw li suñu borom tudde xéewal ndax xam nga bu ñu ne xéewal rek man maay taarif ne nangam mooy xéewal wala keneen jàpp ne mooy xéewal waaye daa am loo xam ne yàlla moo ko tudde xéewal loolee tudde xéewal na ko Sëriñ Tuubaa doone ci ñun loola ci lañ bëgg a wax ndax buñ xoolee xéewal ñu suñu borom defal moom yàlla day wax ne lim du ngeen ko mën a lim ngir bari ko mu bari xéewal yi mu defal doomu aadama wa in tauddu nicmatallahi la taxsuuha inna allaha la gafuurun rahim bu ngeen bëggoon a wàññi wala ngeen lim wala ngeen takk xéewali yàlla yi dangeen ci lott boo demee ci suratu naxl sunu borom fa la waxee wax jooju waxaat ci beneen barabit it même kàddu gi wa aataakum min kulli ma saaltumuuhu wa in tauddu nicmat allahi la taxsuuha inna lindaana la zalumun kafaar nga xam ne doomu aadama li ko yàlla defal ci xéewal su ko bëggoon a lim dana jafe ci moom mu lim ko dafa am nag fu yàlla tudd xéewal waskuru nicmatallahi aleykumu is kuntumu aadaan fa allafa bayna qulubikum fa asbaxtum bi nicmatihi ixwaana xéewal googi nag li ëpp ci mufassiruna yi dañuy wax ne mooy nicmatul iman mooy xéewalu gëm yàlla mooy xéewalu gëm yàlla am na ñooñ boo leen laajoon xéewal mën nañoo jàpp ne alal ju bari rek mooy xéewal fekk mën naa bokk ci xewal nag waaye du moom rek ay xéewal am na ñooñ wërsëg wërsëg nag bu ñu ko waxee du tekki alali kese mën nañoo jàpp ne mooy xéewal fekk mën naa bokk ci xéewal waaye moom rek du xéewal am nañu dund gu teey moom la ñu jàppe xéewal mën na caa bokk waaye moom rek du xéewal <clears throat> kon ñaari aaya yii nga xam ne benn bu ci nekk sunu borom da caa leeral ni wa in tauddu laa tax taxsuuha day fedd li ne xéewal gi yàlla defal mbindeef yi mënuñu koo takk mënuñu ko wañ léegi nag boroom xam-xam yi dañoo indi ay xamle ci lan mooy dëggi dëggi xéewal am ñu ne hiya kullu ma yuta lil xayri bi duni an yatarattaba alayha ay masa ayu masalihin aw iwad lépp loo xam ne da nga ko defal jëm mi doomu aadama te defal ga nga ko koy defal soo amul benn intérêt bu tax nga di ko defal boo xam ne ñeel na la ci wala lenn looy sàkku ci moom mu fayee la ko li koy defal amu ci am na ñu ne loolu mooy xéewal maanaam nga defal nit loo xam ne yow amoo ca benn intérêt danga ko defal ngir jëm yàlla amutit lenn loo xam ne yaa ngi koy séntu ci moom ci mu fayal la ko loolu nag bu fekkonte ne foofu rek la ñem ci xamle xéewal jàpp naa ni mu doy sëkk ci ñoo xam ne Serigne Touba kon xéewalu kese la ndax lim daj ci digganteem ak boroomam ngir ñun amul lenn lu mu séntu ci ñu fay ko ko <coughs> loolu nag ngay defal nit ki te amoo ci intérêt séntu woo ci lu mu lay fayee moom ki nga ko defal mën naa doon wërsëg mën naa doon alal. mën naa doon lu aju ci ak dundam waaye am na ñu wax ne it xéewal mooy lépp loo xam ne dafay jariñ nit ba noppi doon loo xam ne dafa dëppoo ak sharia nit ki la koy jariñ na doon muwaafiqan li sharia la dëppoo ak sharia su boobaa loolu ñu tudde ko xeewal moo tax li Cheikh Sidiya baaba ci xasidaam nga am solo googe nga xam ne njëlbeen gi da koo tàmbulee wane li sëriñ Touba doon nga xam ne daa bokk ci xéewal yi ñu yàlla defal muy Serigne Touba ci boppam a cheikhu ahmadu niamatun awlaaha hatil xalaayiqi kulliha mawlaaha cheikhul xadim xéewal la goo xam ne sunu borom moo ko jox mbindee fi loolu moom dafa làmb ba daj ko seere ko mag ñi sëriñ bi yaroon it dañoo làmb ba daj loolu seere ko moom sëriñ bi it waxal boppam ay kàddu yooyu tegtale ne moom xéewalu kese la waaye nag ñun ñi nga xam ne ñoo fi nekkandi la mag ñi dund mos ko ci sëriñ bi yëg ko ba seere ni xéewal la ñun war nañoo mën a seere li ñu dund ñu nit yëg ko ba xam ne xéewal la nga xam ne duñ ko teg rek ci nett li mag ña ndax su fekkee la mag ñi dundoon ñoom ba seere ni xéewal la dañoo indi seeni wax ne diw nee na sëriñ bi xéewal la diw nee na sëriñ bi xéewal la day mel ne ñun kon loolu lu ñuy nettali waaye ñun yëguñ ko te ñoom dañ ko dañ ko yëgee woon ñun noonu lañ ko yëgee doon te jamononte wuñu ak sëriñ bi amaana sax ñu xéewlu ci ñun maanaam ñu jariñu ci njariñu lépp ñoom lañu ci jariñu kon war nañoo mën a seere suñ suñ suñ yëg-yëgi bopp ak li ñu dund ak sëriñ bi ak li nga xam ne jonjonte nañoo moom ci doon gum doon xéewal ci noonu euh, moo tax euh, foofu damay wax ne bokk na ci li gën a màgg ci liy wane ne Serigne Touba xéewalu kese la waxi boppam ji nga xam ne wax na ko jëme ko ci ñun ñi aju ci moom te xamal ñu ne bu fekkoon ne aju wuñ woon ci moom day donte as caala danañu ko jaari sawara wala iyaasu billah kon nag ki buddi sab gétt ci sawara dox sa digganteeg mbugalum sawara wala iyaasu billah kooko jàpp ne xéwal mënu ko féete kaw ci yow ndax fa asbaxtum bi ni'matihi ixwaana ga sunu boroom wax ci alquran mujj ngeen doon ay bokk ci xéewalu gëm yàlla xéwalu gëm yàlla googee la muy jariñ nit mooy mu tënku ci ndigali yàlla yi wattandi ay tereem loolu teg ko ci siraatal mustaqim ba bu ëllëgee ma mën a mucc ci sawara tàbbi àjjana sëriñ bi nag bi mu ñëwee daa doon ci ñun xéewal googi xéewal gi aju gi aju ci moom nag ba tax mu doon ci ñun xéewal googi mooy la nga xam ne mooy imaan daf koo def ci ñun la nga xam ne mooy islaam daf ñu caa nërgën ba nga xam ne ci siraatal mustaqim képp ko aju ci moom te nga xam ne aju ga wér na nit ngay doon koo xam ne da ngay tege ci siraatal mustaqim doo ko jàdd lu toll ne tarfatal ayni loolu nag day daal di nekk xéewal goo xam ne ëllëg yowmal xiyaamatil akbar euh, lam waxoon ne bu fekkente ne de yàlla li muy digle yaa ngi def lépp li muy tere yaa ngi bàyyi lépp sa kem kàttan ëllëg yowmal xiyaam yàlla amul mel ne pexe mu dul tàbbal àjjana kàttanuk yàlla nag àgg na ci lu neex def waaye ginnaaw moo la diggal li tere la li te góorgóorlu nga sa kem kàttan day mel ne bu fekkonte ne kuy kuy kuy am pexe la dañ amul mel ne pexe mu dul kon benn ngoog li sëriñ bi waxal boppam muy lu leer loolu nag buñ ci demee dañuy gisaat ne bokk na ci xéewal li gën a màgg ci doomu aadama mu nekk ci kaw suuf di jariñu te du loru ëllëg yow mal it mu texe te du texee di sëriñ bi nag waxal na boppam ne man njariñ laa ci yéen loo xam ne ànduma benn lor te it képp ku wéeru ci man ëllëg yow mal xiyaamatil akbar bu xarkanam yi ñetti xeet yi dee ñuul kukk yow sunu borom day weexal sab xarkanam nga bokk ci xarkan borom xarkanam yi nga xam dañuy texe wallahu yansuru nii wal xalqu tatbaau nii fil barri wal baxri daa nafin bila dararin kon moom njëriñ la loo xam ne andut benn lor loolu wane na ni kon moom xéewalu kese la xéewal googi nag njalbeenug liggéeyam bi bayit yooyu ngay dégg xoolal ñetti sabab yi nga xam ne moo sababoon mu yanu yan bi mu yanu ak natt bi nga xam ne sunu borom teg na ko ko soo xoolee day mel ne doo ca gis benn maslaha ci li ñu waxoon maanaam xéewal mooy ngay jëfal nit loo xam ne séentuwoo ca maslaha séentuwoo ci moom it lu mu lay fayee sababu xaybati an allah araada an anaala minhu jaaha wa an akuna shafian li qawmi nga ne kon moom ngir mu ràmm ñu adduna ak alaxira amu ci maslaha séentuwu ci dara waaye jaral na ko mu yanu yan boobu mu yanu wa an akuna shafian li xam wa an akuna xaadiman fi daw mi maanaam liggéey lu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam liggéey bu sax dàkk jaral na ko mu yanu yan boobu yi nga xam ne yan woon na ko bi sëñ Musaa Ka di wax naan dëngañ di wéy te tawatul balaaya ci la am ci aaya nga xam ne yan boo xam ne ba muy jaayanteeg rasulullahi sallallahu alay wa sallam nee na ko bari na góor yàlla yoo xam ne laajoon nañ daraja jii nga laaj bëgg a yanu yan bii nga yanu waaye nag kuñ ci wax la koy jaay nga deltu ginnaaw mu ne ko nag bu fekkee ne sama bakkan attan na ko rek sama jom moom dana ko mën a dékku te fekk te loolu nga xam ne maanaam mi ngi mi ngi jomam ma ngi koy dékku bu ko bakk bakkanam attanee sunu njariñ la ñun te njariñ li mooy xettali ñu ràmmuñu fexe ba maanaam sunu sunu àdduna ak sunu alaxira lépp jag loolu nag waxu ko yem ca ndax da ko jëflante ak ñun ndax bi nga xamee ne liggéey woote na wooteem bu màgg bii woote na wooteem bu màgg bii lam njëkkoon wax ci Mbàkke Bari mooy koo xam ne jàng dong dong dong moo tax a jóg mën ngaa dem seet feneen foo ko defe ji dem mën ngaa dem ci say mbokk seet feneen foo ko defe ji waaye koo xam ne li ma tax a jug nag moo la ko tax a jug nag mooy defar nit ba mel ci kaw suuf yàlla bëgg mu mel ni nga xam ne benn benn benn mission mooy mission bi nga xam ne yónnent bu yàlla mas a yónni loolu la tax a jug te mooy nit ki nekk saalix digganteem ak boroomam nekk saalix digganteem ak ay moroomam nekk saalix digganteem ak boppam maa nit ki defaru daal ci digganteem ak boroomam digganteem ak ay moroomam moom ci jëmmi boppam sëriñ bi nag loolu moo doonoon mission bi nga xam ne ci la nekkoon ba mu ca nekkee ñu ko wuysi wuysi ko mu ànd ak ñoom ca loola lu ne mu daj ko coono bu nekk mu daj ko natt bu nekk mu jànkoonteeg moom ba liggéeyam bi agsi fi mu agsi bi mu agsee fii mu agsi nag xéewal yooyu yi nga xam ne nag day làmbo wërsëg làmbo alal làmbo dund gu teey sunu borom defal ko ci loo xam ne dafa mel daf koo tàggatal jamono ba képp koo xam ne tënku nga ci sart yi nga xam ne moom la tëral ci nekk ko aju ci mën ci day mel ne texe gu sax dàkk la la sunu borom def fii ci àdduna waaye texe àllaaxira ga lañ gën a gëm ci goog àdduna gii nga xam ne ñu ngi ko gis te àgguñ ci loolu kon mënees na koo tënk ci ne euh, sëriñ bi xéewal la goo xam ne euh, sunu borom moo ñu ko xéewee waaye nag bi ñu sunu borom boolee ak moom li nga xam ne mooy tax nit ki dund ci kaw suuf dund goo xam ne àddunaam léppay jag te la ca njëkk mooy ak gëm yàlla gu mat sëkk sopp yonente bi aleyhi salaatu wasalaam taqoog alquran def ko muy sa dalil sa sax dàkk ci jaamu yàlla subhaanahu wa taala loolu day mel ne sunu boroom subhaanahu wa taala defal nañu tawféexi sëriñ bi lam lam bëggoon ci ñun ci loolu man a réussir na ko ci ak njabootam te bu ma nee ak njabootam mooy képp koo xam ne aju na ci moom bokk na ci nag liy tegtale ba tey doon gim doon xéewal mooy wax jam wax ne kullu muridin bii yaluusu yasaadu fa innahu min al ada mubaadu xam nga ko taxaw woote ne képp koo xam ne day yàlla nga namm ñëw ànd ak man wéeru ci man na ngay yëg ne sunu borom dana la defal ak texe ci ànd googu nga ànd ak man te sunu borom dana la soreele ak lépp loo xam ne lor la fa innahu min al ada mubaadu kon loolu moom mën nañoo wax ne yoon na misaal ci ne moom xéewalu kese la ci bi mu wootee waaye bokk na ca la koy tegtalewaat it bi mu ne amarani rabbi bi an usarriha bi annani maladun wahiman wa mafsa fa man araada al xayra fii kilta yit daari ni falyalus bi sama borom moo ma digal ne ma naa leeral naa béral naa déclaré wane ne man kat wéeruwaay laa laqatukaay laa te ab muccukaay laa ku bëgg mucc nag àdduna ak alaaxira na nga ñëw wéerus ci man te mucc àdduna ak àllaaxira nag xéewal féetewu ko kaw kon nag ginnaaw yàlla dogal nañu wéeru ci moom mhm. daal di tàmbulee gis njëriñ yi fii ci àdduna mhm. te mooy dox na suñu digganteeg lépp lu naqari suñu borom subhaanahu wa taala mhm. sóob nañu nërgën ñu ci li neex yàlla xamal nañu yàlla xamal nañu yonente bi alayhi salaatu xamal nañu alquran xamal nañu lislaam ak nañ ko war a dunde xamal nañu xaqiqa muy nañ war a fóoti suñuy xol ci lépp loo xam ne ay radail la taxliya ko ci ay fadail kon kooku moom la mu waxoon ne suñu borom daf maa wax ne nañ ñëw wéeru si ci man ku bëgg mucc adduna ak alaxira wala ku bëgg yiwu adduna ak alaxira loola moom wan nañu ko ba ñu teg ko bët macha eh, jërëjëf eh, sëñ Seexuna <coughs> yaakaar naa loolu leer na nañ ci tomb bi ci eh, boo desuwaatee sax ci ñaari aay yi nga xam ne moom nga ubbee woon te suñ borom di ci wax rek ne maanaam xéewalu yàlla yi nga xam ne def na ko ci mbindaafoon yi. suñ ko bëggoon lim danañ danañ lot duñ ko mën a lim day mel ne xiiwal googu nag li yàlla tudde xiiwal rek moo moo doon xiiwal ndax xiiwal day mel ne day doon baat boo xam ne day ëmb day ëmb yiwu àdduna ak alaaxira mm-hmm. bu dee wërsëg rek mën naa yem ci àdduna mm-hmm. bu dee alal mën naa nekk ab temps nga am ko gis nga ko am alal ba mu yàgg mu ñàkkaat ko loolu du xiiwal mm-hmm. bu dee bu dee wér-gi-yaram wéri di mën na caa topp waaye dund goo xam ne day teey ci àdduna teey ci alaaxira dëgg-dëgg loolu mooy xéewal te dafa mel ne loolu moom nga ñu andil ndax doon gi sëñ doon xéewal maanaam lim ñu njëkk a jural mooy bakkan bu teey bakkan bu teey mooy xel mu dal uhuh. xel mu dal sa digganteeg sa borom li ci njëkk mooy yow mu wóor na le mbooleem xeeti li nga xamante ne bii suñ borom mi ngi koy tere ci ab xol ba tax kooka di añaan baa muy rëy baa muy def nangam suñ sëñ Tuubaa dindi na ko ci yow amatoo kañaan amutoo rëy jaawaleetoo yàlla ak dara maanaam doo foyee xeeti jaamu yàlla yi ay caaxaan jëmatoo ca kooku day daal di am bakkan bu teey ndax mooy xelam day daal di commencé dal beneen bi ci toppitam muy dëgg dëgg xiiwal mooy sëñ Tuubaa daf ñoo defal ba lépp loo amati mu doy la nga xamante ni sow fit du fër-fër mhm. di jëm ci la neen xéewal dëgg nag mooy ki nga xamante ni bi jàpp na ne kenn ëppaleetu ko mhm. lim am doy na ko loolu xéewal la kon day mel ne mhm. eh, li nga wax ne sëñ bi mu wootee ne wéeruwaay laa làquwaay eh, eh, laa kaaraange laa yaakaar naa nag am foo wéeru am la làq am sax ba lu dàq la ñëw xiiwal mënut a ëpp lool yàlla kaa naa ne dëgg dëgg xiiwal moom mooy sëñ Touba macha allah ci ni ko traité te moom moom moom moom la waxal boppam rek mhm. sëñ Tuubaa moom xéewal la te it bi mu doonee xéewal it mhm. ni ko sun borom jàngalee ci alxuraan la ko doone bi mu mhm. doonee xéewal néewut maay xéewalug murit yi néewut maay xéewalug jullit yi yam ci maay xéewalug lu yàlla bind wa ndax irham xal wara mooy yéen ñëpp daal na ngeen xam ne man maay seen xéewal kon maa leen di defendre waaw loolu loolu yaakaar naa ne dëgg dëgg dëgg xiiwal nag mooy mooy sëñ Touba eh, yal nañu yàlla fayal sëriñ Touba eh, ñoo ngi lay sant di la gërëm kon xam naa damay ñëw ci sama ñaareel bi tomb yaakaar naa loolu leer na moom mhm. eh, kon ku bëgg dëgg dëgg xiiwal moom da ngay ñëw ci sëñ Touba mhm. te it sëñ Seexuna sëñ Touba làmb daj la mhm. xool gis la mos taxamtiku la day wax ne ba mu liggéeyalee yàlla liggéeyal mm-hmm. yonent bi alayhi salaatu wasalaam bay ñibbi si mm-hmm. wax nañ ca gaal ga mm-hmm. ba mu taxawee ca bato ba bi ko fa maam Cheikh Anta fekkee nee na ko seex dem naa ba ñëw baat boobu la ko njëkk a wax mu fekk ko mën a copp jublu penku wey sëq lépp mu ne ko seex dem nañ ba ñëw de mu ah, mu ne ko bañun ko topp sunu tànk suñ ko toppee du ngeen fi ruus des na diir bu gàtt lu nit gën a tee bëgg bala ko am daa ñëw suñu dëkk bee di Touba te bari na fooy gis aw yiw mhm. ba defe na kenn na ko fa def mhm. loxo su tuut see ko fa def moo tax sëñ bay jaxat na ko euh, foo mës a dégg aw yiw ak lu baax jóg na fa tey ay xotta des fépp mbàkke yow yaa di nga jaay yaakaar naa ne kon doy na sëkk ci mhm. ñu xam dëgg-dëgg xéewali sëñ Tuubaa euh, ñi ngi ñaan yàlla moo dëgëral sa sa sa taxawaay gën a leeral sa dënn te gën a setal saw làmmiñ kon ñu ñëw ci nag yërmaane gi sëñ Tuubaa doon yaakaar naa ne yàlla day dikk fii naan la man aji jéggale laa mhm. waaye daa wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko nag mhm. ba ma lay ba ma lay yón bind nag di la yónni ci nit ñi bëggoon nga nekk yërmande rek a tax mhm. kon yaakaar naa ne yërmande moom sëñ Tuubaa da koo feese dell ana nan lañ mën a xamee doon gi sëñ tubaa doon yërmande bi mu wooyee mbindeef yi ba ñu wuy si ko jërëjëf sëriñ Fallou ci taaliq bu am solo boobu waaw ndax loolu moom indi indilaan nga ñu lu ama am solo ci liñ doon leeral léegi loo xam ne mënu ci mënu ci woon a ñàkk ci anam goo xam ne yaakaar naa ñi koy diglu danañ xam ne loolu moom gën naa leeral sax li doon wax euh, sëriñ bi ginnaaw bi mu doonee xéewal dafa doon yërmande doon ngim doon yërmande nag mënta weesu seen lu jëm si ci kaw doomu aadama yi nga yanu ko yow ngir ñoom ñu mucc seen nattu bi jëm si seen kaw nga yanu ko ngir ñoom ñu mucc loolu yërmande féetewu ko kaw yërmande nag day aw melo ci melo yàlla yi subhanahu wa taala euh, rahma la yàlla di jëfandikoo ci buy wax yonente bi alayhi salatu wasalaam illa rahmatan lil alamin ndax rahim moom yërmande ëllëg yowmal xiyaam la waaye rahma moom yërmandey euh, rahman yërmandey fii ci àdduna la euh, rahma jooji nag lislaam daf koy digle te dafa lëkkale rahma maanaam yërmande ak ngëm gu mat sëkk nit ki bu yërmande nekkee ci moom day wane ne ak ngëmam yàlla mat na eh, naka noonu lislaam day wattandikulu ñàkk yërmande ndax ñàkk yërmande la muy jur mooy xaswatul xulub maanaam wow xol wala iyaasu billah te lislaam bi mu diglee yërmande yemalewu ko ci mbindee fii maanaam doomu aadama yi waaye yërmande ji dafa bëgg mu jéggi sax ba jàll ci bahaim yi ba ba jàll ci bahaim yi loolu nag eh, danañ ci joxe ay firnde maanaam ci Sëriñ Tuubaa nam ko doone Euh, bu ñu xoolee euh, jëmmi sëriñ bi yërmandeem ci doomu aadama yi ak yërmandeem ci ñi nga xam ne ay mbindeef lañ te duñu ay doomu aadama lu ci nekk mm, am na ay ay ay man nañ koo touché mën nañ ko laal mën nañ koo laal te ko loxo ba ca jiitu junj nga ci dara léegi bi muy ñaan boromam di wax ak moom ne ko dama bëgg nga yërëmal ma mboolem mbindeef yi la ko wax maanaam mboolem mbindeef yi na leen yërëm yaa malikal mulki yaa man jàlla an qawadin irham jamia alwara yaa hadiyan radaa kon kooku ya alwara nag bu ñu ko waxee mooy lépp lu yàlla lépp lu dul yàlla rek da nga dugg ci biir alwara waaw da dugg ci biir moom ñooñu la maanaam lu dul yàlla te mbindeefum yàlla mi ngi ñaan yërmande yàlla sottee ko ci sa kaw danañ joxe misaal ci bi sëriñ bi nekkee fii ci dëkkam bii di bind Matlabul Fawzayni te Serigne Saalihu daan ko nettali lu baree bari gaynde googu nga xam ne da doon dàq aw rab mu ñëw ba agsi ci sëriñ bi bi mu ñëw bu jukko ne kuuj wàññeeku maanaam rab woowee gaynde ki doon dàq xam na ne sëriñ bi yërmande kese la waaw xam xam na ne yërmande yërmande ji nekk ci sëriñ bi tax na mu daw wut si ko bi mu dikkee it ko doon topp xam ne ne kii yërmande la ji yàlla wàcc ci kaw suuf moom it rus na ko ba wàññeeku wan ginnaaw kee loolu moom doy na misaal ci ak doonam yërmande waaye bu loolu jàllee it ku ne xam na ni nattoom bi lim ci daj ak ni ko yàlla joxoon kàttanu mën a fayu te mësta lor mbindeef ci biir liggéey bi mës cee lor mbindeef mel na mbindeef mësu ko lor boo toppee iram bi mu nekkee ci tukki bi am na barab bu mu nekkoon boo xam ne moom sëriñ bi boo demee ci euh, irwaaw bu Cheikh Mouhamadou Lamine Diop Dagana da ko fi nettali nee na lañ ko fa doon def ci xeeti nattu nga xam ne fañ ko dugal maanaam militaire yi nekk ak moom ci biir buñ bëggee tux di tux buñ bëggee naan seen sàngara ne ca buñ bëggee ne leneen ne ca leneen nee na waxuma muy fayantoo ak ñoom waaye la tax sax nanguwu ko jàmbat mooy daa am ñum def royteef ndax nee na wóor na ma ni li may lor ñoom ñii ñëpp kenn ku nekk ñaari malaayika ngi ci sa mbagg muy raqib ak atid te li may lor ñi mi ngi leen di lor ginnaaw ñu ngi koy muñ nag naa leen roy maanaam muñ li nga xam ne mi ngi may dal kooku kon jël moom fam fam nekk daa bokkut fii ñu nekk noonu maanaam mën naa doon jëmmi doomu aadama joo xam ne moom lañ koy xoolee nii waaye nag ni muy jëflanteeg ñun dépassé na jëflante doomu aadama ndax bu fekkonte ne maanaam ruyu malaayika yooyee maanaam mën naa xool mettitu liñ ko def ndax xam nga ni koo xam ne dafa jeex tàkk ci yàlla nga teg ko ci barab di tux saxaar si nga di ko ko xir ne ci sa sàngara di ko di yàq ay téeréem fexe ba ne ci ne ci kanamam maanaam di def loo xam ne bu sañoon du ko teg bët waaye moom mu xool ne kat wa inna aleykum la xaafidin kiraman katibin yaalamuna ma tafaaluun am na ñaari malaayika yu nekk ci mbaggum doomu aadama bu nekk muy raqib ak atiid te wóor na ma ne li may lor mi ngi leen di lor ginnaaw muñ nañ ko nag naa ko muñ kon nag naa ko muñe ni ma ko muñe naa ni ñu ko muñe loolu yërmande mënu ko féete kaw ba ca doolee ko waat boo duggee ci biir ay mbindam da cee bari loo xam ne buy ñaan yàlla dafay ñaanal mbindeef yëpp da koy nag ci euh, li ñuy wax mbay ci sa wew tànk yonent bi alayhi salaatu wa salaam day wax naan wabda bi nafsika wa bi man taawul maanaa eh, day tàmbulee ci ay bokki boppam wajal jamia ixwati wa nasabi fi rahmatin yowma stidaadi nasabi waaye da ngay dem ba ci biir nga déggaat wajal jamia al muslimina turra nga xam ne mbooleem doomu aadama yëpp la ñaanal maanaam boo jëloon matlabu shifaa yi matlabu shifaa yi boo ko jëloon ci ngay xam dëgg dëgg yërmande Cheikhul Xadim ndax fam départ di waaw fa mu déparé di ñu di ñu di ñu di ñu di ñu di ñu di ñu di ñu layal ci suñu diggante suñu borom di ñu layal ci suñuy rëcc-rëcc ak suñu néew doole doomu aadama maanaam rawatina jullit bi wala tuwaaxishum bi ma laa yanqusuk wala humu habilati laa yanfaxu nga xam ne fa innahum wa in asawka yaa ahad li gaflatin lam yushriku bika ahad buñ la tooñee it maa ngi lay wax yow yàlla nela bokkaale wuñ la ak dara li xaflatin maanaam sàggan rek moo leen tax ñu def li ñuy def waaye xam na ni yow rek yaay yàlla fa innahum abdaanuhum la taqdiru ala balaika li dofin yazharu te it ñoom néew nañ doole néew doole goo xam ne na sa sa sam nattu attanuñ ko ñoom xulubuhum laysa tamilu abada ila ziwaaka min huna ila gada seen xolit mësta jàng jëm ci ku yow kon lii ñuy def nag muy ay ay ay xeeti mooy ak laka sadul noonu lakinnama taladutu ljawaarihi afdahumu li aqbahi alxabaa'ihi bu dee talassus nga xam ne kon day mel ni cër yi mooy sàcc di def lu neexut yàlla bu dee talazzuz nga xam ne maanaam bànneexub cër moo leen di puus bañ def loo xam ne waruñ ko woon a def waaye nag seen xol moom nekku ci loolu nekku ci kon nag falaa tuwaaxishum maa ngi lay ñaan rikk bu leen jàppee seen càggante gi te xam ne kat yemalewuñ laak dara nanga leen nag may li na fi yow tañ soxla ko te nga xam ne yow loola amul la benn jariñ day mel ne ci biir Euh, xasida googu bi mu demee ba ca biir it dangay gisaat muy ñaan barab bu nekk ma réer nekk nga xam ne moom da ko matale yow yàlla na nga fa wàcc xam barab bu ñàkk nekk yàlla na nga wàcc am-am fu feebar nekk yow yàlla na nga fa wàcc ak wér noonu la ko toppoo te ñaan googu mu ñaan nag da koo matale mboolem doomu aadama yëpp kon moom boo duggee ci biiru mbindam da ngay gis ne mësta wutal boppam baaraas maanaam fu mu tàmbalee fu mu yem maanaam bindee fi yàlla yëpp rek ñoo ko taxoon a jóg bi mu wootee it woote bi wane na ni woowut aw xeet woowut aw askan woowut ab famille doomu adama yëpp la bokk bindee fi yàlla yëpp lakin unaadi kullal bilaadi fii ka unaadi kullal ibaadi maanaam réew yëpp ak jaam ñëpp la woo bi mu wootee it ci yonente bi alayhi salaatu salaam la jëmi ñëpp nga xam ne kon moom euh, du nit ku ñuul du nit ku weex du du du du africain bi du du ki ne ci meneen réew du mbokkum boppam mi du jàmbur bi maanaam woote bi dafa tàllal loxo képp ku bëgg a dem ci yàlla bi mu wootee képp ku bëgg dem ci yàlla ba ñi ñëw ànd ak moom ñëw ànd ak moom it ñi nga xam ne ànduñoo moom teewul mu nangul leen lañ nekk jamono bu nekk muy rafetlu seen taxawaay di leen ñaanal yàlla yàlla teg leen ca yoon wa nga xam ne mooy wa mag ñi wax nañ ne dafa am ñoo xam ne dañoo mas a toog ak moom di wax ci mbirum alquran ak nam meloon njëkk ñëwuk sëriñ bi ba bëgg a bëgg a bëgg a eh, ña nga xam ne ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo fi nekkoon ci daan laawaa nag yéen demee bëgg a wax ci ñoom yoo xam ne eh, waxuwul sëriñ bi ne ñoo ñooñu de daf leen di sant bu baax xoola gis-gis bi mu am moom. ñi daan laawaan ci alxuraan nag maanaa nga xam ne jàppiwuñu woon alxuraan nañ ko doon a jàppe xëy na ngir foof booba foofu la jamono tolloon mu ne leen di sant ndax ñoom dafa jàpp ne mu ngi mel ne ko aw fasam rëcc. mu di ko wër ba fekk ay waxambaane yu toog ci barab di waxtaan yeew ko ci wudd wa joxuñ ko mu lekk joxuñ ko mu naan dana xiif dana mar waaye nag bu agsee bañ wan ko ko moom ne leen sant ndax bu dutoon ak ñoom a day sànku ñi nga xam ne moom ñooñu téye giñ alxuraan moom ba mu ñëw fekk ko fi ba cee def li mu ci war a def ba def ci lim ci def ba mu àgg fi mu tey moom da leen caa sant waaye moom gisul na ñoom ñu ñu war a yàdd lañ ndax téye ga rek doy na sëkk effort loolu nag kon gisin la woo xam ne moom suñu borom defoon na ci moom mu nekk yërmande joo xam ne lépp lu mën a doon gis-gis bu rafet la ci am lépp lu mën a doon xam nga nattu bii nga xam ne suñ borom nattu na ko ko tàmbulee 1995 quinze ba niñ ko noppee gis nga xam ne ci loxo la nekk ak njabootam tisaaroo ci ay këram tisaaroo ci lam bëggoon a liggéey dëgg-dëgg donte ñun gis nañ ne sëriñ bi liggéey na waaye jàpp nañ ne bu nekkutoon ci loxo dana liggéey liggéey bu gën a extraordinaire bii ñu gis donte nag li ñu gis nii moom tubaarkal la waaye nag cat li mooy lañ gisut bu fekkoonte ne nekkutoon ci loxo waaye bi yàlla dogalee loolu lépp am ñu jaarale ko fi ñu ko jaarale nga xam ne jéem a faat bakkanam jéem a yàq ab liggéeyam jéem a rikki ak ngëmam jéem a dox digganteem ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ànd ak loolu lépp bi ko suñ boroom dëppee dëppee kàttan ba am ndam ba dara desul ñoom ñu xam ne am na ndam ba taxawee def na jéggal naa ñëpp afawtu an il aadai turran li wajhi man nafaahum li gayri sarmadan lastu adfaaw kon kooku yërmande mënta féete kaw loolu kon jàpp naan daal Serigne Touba diggante doon gim doon xéewal ak doon gim doon yërmande wax na ko ñu gis jëf na ñu gis dund nañ ko ak moom ba xam la mu saf macha allah eh, jërëjëf sëñ Seexuna eh, wax moom li nga dégg ñu nettali la ko la ak li nga xamal sa bopp ak li nga teg sa bët yaakaar naa ne nettali nañ ñu sëriñ bi teg nañ ci suñ bët waaye mos nañ ko te sëñ bi daa yàggut damay joxe exemple rek ci borom kër gi ñu nekk di soxna may Maymunatu Mbàkke bint Cheikh Al Xadim soxna Maymuna euh, weeru koor dañ koy séentu ñu ne buñ séenee weer wi ci séentu bu njëkk bi dañuy laylatul xadar ci ñaar fukki fan yeeg benn comme ren rek buñ ko séenoo ci séenu bu mujj ba ci ñaar fukki fan yaag juróom-ñaar lay doon soxna si xëye fii daal ne ñaar fukki yaag juróom-ñaar de moo gën nag ndax nit ñi kat dañuy xiif te di leen dimbale nag ba ñaar fukk yi ak juróom-ñaar moo gën ndimbali ñaar fukk ak benn yi xiiwal yi day gaaw a dakk te man bu ma sañoon weer wépp ñu ñëw ma leen di tibbal daal di jóg fii dem ci barab bi ànd ak ay nit yónni ndaw na ko demal Mbàkke nga wol ma sëñ Njaaña ne ko na ñëw ubbil ma barabu sëñ Tuubaa bi te boobu guddi jot na sëñ Njaaña dafa fekk mu fàttu mu joxe caabi ji ñu ñëw ubbi barabu sëñ Tuubaa bii soxna may dugg ci biir génn daal ne ah mbirum Laylatul Qadr dalaa doon wax ak moom waaye nangul na ma ko nga xam ne bañ séentoo weer wi kenn gisu ko ci réew mi lan la ci jublu woon mooy nit ñi ñëw di tibbulu si fii ak ndogu yi ñu fiy def mu ne boo ko defee ñaar fukki ak benn bu lay to xadar jàllee dañuy defee ne jeex na te man bu ma sañoon weer wépp laa koy bernde yaakaar naa ne yërmande yërmande dëgg mooy loolu boo xoolee itam euh, ku mel ne Cheikh Saliou nga xam ne moom da daan wax ne ku dut yàlla mi bind mi daaf yi rek ëppoo ma ci ñoom yërmande euh, wax nañ ne sëriñ bi am na bis boo xamante day bind képp aw weñ ci xalima gi di naan ci daaji sëñ bi na dana tekk téye xalima ga ba weñ wa naanal boppam ba naaw mosu ko kon ne di bind ngir lan bañ tas yaakaaram jooju yaakaar naa ne yërmande féetuwut kaw lool mën na si na wax it ne ku am yërmande mais danga koy yemale nag ci nit ñi waaye sëñ tubaa yërmandeem tax na musta tàpp aw weñ musta tàpp aw yoo musta rey aw fel xol bi yàlla ji ci nekk ak yonent bi nee na tax na mu jaayante sax ba du wokkutu ba yëg waneen neexit wudut neexitu bëgg yàlla wala neexitu bëgg yonent bi am na mag mu baax moo xam ne dañ daan wax ne dafa am mag ñu dem ci moom na ko sëñ tubaa ni nga ko jegee ak ni nga bare xam-xam moo leen sëñ tubaa dañ ko wooteloo muy woote te woowuma yéen ñu ko wuy ji bu leen defe na seen ak njàmbaar la da leen a woo man mi ko wujji wut bu leen ko jàppee sama yaafus damaa woowut waaye sëñ tubaa ku mu woo nga wujji ko yaakaar naa ne koo xam ne nag dangaa ngaa yar njariñul àdduna ak loolu alaaxira wallahu yanzuru nii wal xalqu tatbauni fil barri wal bahri saa nafin bila darari amul kenn ku ko mas a wax ci àdduna ñu toppale te gisuñu nga esek ci genn wet woo naa jéeri ji ak géej gi nit ku ñu la ku weex ñëpp na ñëw buñ dikkee danañ ma fekk may borom njariñ lu àndut ak lor te ba ñëwee fi ne mosuñoo gis ci moom lor te waxtu wu nañuy gis njariñ yaakaar naa ne Serigne Touba li mu doon liggéeyal yàlla bu nee xiiwal la ni nga ko traité am na solo bu dee yërmande la itam ni nga ko euh, traité am na solo kon yaakaar naa li may wax toujours te du ma jóg ci di ko wax mooy solution bu àdduna bi mi ngi ci loxol Serigne yaakaar naa ne bu nit ñi xamee sëñ Touba dëgg xam lim woote xam fi mu jëm téeréem yii ñu traduire ko ci langue yëpp adduna bépp danañ maase wuy si sëñ Touba sëñ naa ñu ngi lay sant di la gërëm eh, di la jox kàddu gi rek ngir nga tàggatoo ak bokk yi. jërëjëf Cheikh Mouhamadul Fadilu xam naa di santaat bu baax rek ci jataay bi nga xam ne fekkee nañ ko. di sant ki nga xam ne ginnaaw yàlla moo tax ñu fekk ko muy Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaynde Fatma. di rafetlu taxawaay yu am solo yi nga xam ne mi ngi koy taxawee ci liggéey bii di la jaajëfal yow it ci euh, idaara bu am solo bi di jaajëfal bokk yi nga xam ne it ñoo tax dafa kàdd gi ak man mu man fa àgg di ñaan suñu borom rek weer wi ñu nekk yàlla bu mu doon sunu weer wu mujj yàlla nañ ko fekk at yu bare bari ci barke Cheikhul Khadim jataay bi it yàlla nekk jataay ba mu gërëm Euh, kaddu yi it maanaam jubluwaay bi moo doonoon wane xéewal gi Serigne Touba doon xéewal ak doon gim doon yërmande. Mhm. lu ca loo ci xam na nag euh, dëng na xëy na sabqul lisaan la sabqul lisaan nag. Euh, borom maqaama day wax ne waqalla ma salima mikisaarun aw uqila ibaar <laughs> maanaam koo xam ne da yëngu ci wax. Mhm. ba te doo ca mas a juum loolu jafe na mhm. waaye nag bu ci amee it ñi ngi koy ñi ngi koy ñi ngi doglu ngànt te xam ne mhm. liñ jublu woon a waxtaane daal ci jataay bii mhm. du loo xam ne war naa tuuse benn doomu aadama maanaam xéewalug yàlla gum ñu defal ak yërmaande gum ñu defal muy jëmmi Cheikhul Khadim ñu di ko waxtaane loolu képp moo doonoon jubluwaay bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu yaakaar naa ne mën naa bañ a am wàññen waaye itam mën naa bañ a am euh, loraange ndax it nag joxe dépense sa kër sa soxna toggal la nga ne ceeb bi ma añe neex na lu nit sañ a di sañ na ko te ñun loolu rek la ñu wax kon ñu ngi sant bu baax di la gërëm di sant sunu caméraman yi di jaajëfal commission culturelle bi e, di séntu ñëpp nag ci laylatul xadar di ñaan sunu borom subhanahu wa taala na yàlla def jàmm ci mi yàlla yàggal fi sunu kilifay diine yàlla yàlla yàggal fi sëriñ Tuubaa Cheikh Mamadul Muntaxa ñi ngi santaat bu baax a baax sëriñ Cheikh Abdoul Ahad Gaynde Fatma di sant sëriñ Cheikhouna mu sëriñ euh, euh, di sant seen mbokk asalaamu aleykum wa rahmatullahi alhamdulillahi ma sant yàlla julli ci xëyrul xalqi rabbun jàlla wa baadu maa taalifal maymuuna mañ saxiira waaye mag la moona mooy bint sayxinal xadiimi caat ma moo tax ba mboolem mag ña ko war ma mu boole mbóoti taaw ya ak yoy caat ya donn ca mbóot ya nekk tey baag mbir ya jàng nga jàngle nga wooteeg màggal fii laylatil xadri yaa koy sellal weer wi nga wootee gën ci mboolem weer yi guddi ga it moo faw xa mboolem guddi yi foo tudde laylatul xadar ci réew mi xel yépp dem ca soxna may fii saw mi